bonsoir selon vos situations géographiques respectives, nous vous saluons. Bienvenue à tous dans l'œil de l'Eye Co, l'émission sportive numéro 1 sur le net. Comme tous les lundis, c'est sur votre site d'information chronique c'est également avec le grand expert maison, Toumani Badji. Toumani, bienvenue à toi. Salam alaikum. Salam alaikum Abdoulaye, salam alaikum chers internautes. Nous sommes nous site d'information chronique.sn, chronique TV. Aman content. content contentement, nous Ici C'est un plateau de c'est une émission sportive. Nous sommes de Altine Boudjot. ñu de faire la Abdoulaye alors, Sport Plaisir, c'est Les de Co. Donc, euh, à vous, Serge Internaute, à vous, Serge Abonné, continuez à réagir sur les réseaux sociaux, partagez, likez, commentez l'émission et pour vous. Alors, euh, continuez à élargir la communauté Les de Co. Donc, euh, tout de suite, nous allons vous donner le programme de ce numéro de l'aide de Co. Alors, nous allons ouvrir ce numéro avec la page football. Donc, vous aurez la 14e journée de la Ligue 1 et Ligue 2 Star Times. Ensuite, euh, nous ferons une petite analyse euh, sur le contrat qui Star Time à, la Ligue sénégalaise de football professionnel. Ensuite, euh, nous prendrons donc la direction de la Niger pour voir euh, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le week-end des Lyon fera également son retour également sur l'émission. Vous aurez également enfin du basketball. Euh, alors, observons une courte petite pause et on revient sur le plateau. Suivez l'œil de Enko sur Chronique SN. De retour sur le plateau, Toumani, nous allons aborder la 14e journée de la Ligue 1 et Ligue 2 Star Time. Comment la terre est comme d'habitude Oui, Abdoulaye, comme nous sommes fasciné de faire le week-end, nous avons fait le fasciné de faire le résultat qui est tombé la 14e journée. Nous avons fait une petite. Nous avons fait une phase aller ci ci week-end bi ñu génn. Mhm. donc euh, amuñu temps sax toog naan ñu ngi pour. Euh, am ay joueurs yi xaw a noppaliku tuuti dañ daal di insané ci phase retour yi mhm. donc quatorzième journée bi euh, journée yëpp euh, démb la daal di am mooy ci dimanche bi mhm. donc euh, leader bi AS Pikine moo doon dalal Stade Mbour Stade Mbour daal di koy fekki Alassane Djigo door ko deux buts à un mhm. mu doon défaite bu njëkk bu AS Pikine ci saison bi waaw ñu continuer ko ñaari tali bu doon dalal Linguère bu Saint-Louis foofu ci stade Léopold Sédar Senghor ñu daal di tembo zéro bi partout Ñambour bu Louga moo doon dalal AS Douane foofu ci Ndiambour daal di koy dóor 3 buts à 0 Mbour Petite Côte moo doon dalal Jaraaf ci stade Caroline Faye ñu daal di tembo 1 partout Casa Sport bu Ziguinchor moo doon dalal US Gorée foofu ci stade Aline Sitoé Diatta ñu daal di témboo un but partout Dakar Sacré Cœur daal di dalal Teungueth FC foofu ci stade Léopold Sédar Senghor daal di koy dóor deux buts à un mhm. match bu waroon am diggante Génération Foot ak Sonacos foofu ci Déni Biram Ndaw dañ ko daal di mujjee reporté donc Abdoulaye lool mo jotoon a ci walum euh, résultat quatorzième journée Ligue donc euh, Ligue 1 li nga le point euh, mhm. à l'issue de cette 14e journée de championnat local. il n'y a maintenant qu'une seule équipe invaincue. mom mhm. Génération Foot parce que Pikine mi nga suis mom dalal stade de de mhm. donc mais téwul Pikine mu ngi si bopp classement bi jël pay génération foot moom moo ci topp matcham dañ ko mujjee reporté ndax euh, faute de couverture euh, faute de couverture donc service de l'ordre disponible lu ñu woon ba tey mu nekk loo xamante ne contexte électoral bëri na li nga xamante ne dafay dafay am leneen choc bi également si 14e journée bi mu nekkoon Dakar Sacré-Cœur ak Tëngéej FC donc Dakar Sacré-Cœur ñoom académiciens yi mujjee nañu gagné ki nga xamante ne moom moo di Tëngéej FC mm-hmm. ba pare jàll si classement bi jàll seen kanam donc ñoom ñi nga xamante ne Dakar Sacré-Cœur léegi ñoom ñooy troisième mm-hmm. jàll si li nga xamante ne moo di euh, Tëngéej FC waaw yooyu moo nekkoon yi nga xam te yi amoon ci week-end quatorzième journée bi tumaa yi léegi xam naa dama lay bàyyi nga joxe li nga xam moo di résultat Ligue 2 yi su ko defee après ñu ñëw jox leen classement Ligue 1 bi voilà Abdoulaye Ligue bi tamit ñu ngi doon amal seen quatorzième journée euh, dimanche bi nawet la match yu gën match yu bëri ci dimanche bi lañ ko daal di amal Guédiawaye FC Pro moo doon dalal Africa euh, pour mhm. moo doon stade Massène Sène bu Fatick EJ euh, daal di koy dóor dóor yu métti te yàgg 5 buts à 1. waaw ah, donc dafa ni <laughs> ñoo di étudiants yi seen défaite bi métti na. trop 5 buts à 1 di Fatick moom mayu leen dara. foofu ci stade Massène Sène. Mhm. Euh, Jambar FC moo doon dalal Yego Jambar. foofu ci stade foofu ci stade bu Saly ñu daal tembo zéro bi partout. Mhm. donc dinañ wéyale lu ci des ci journée yooyu noonu tey jii ci lundi bi US Ouakam mooy dalal jamono bu Fatick foofu ci stade FC Amitié mooy daral poor port autonome bu Dakar foofu ci stade Caroline Faye bu Mbour CNEPS excellence mooy daral éthique toujours foofu ci stade Caroline Faye bu Mbour Euh, ñu daal di koy jeexaree ak rencontre renaissance bu Dakar mooy dalal Kër Madior foofu ci stade Alassane Djigo bu Pikine Abdoulaye alors Toumani donc Ligue ñu mën a jàpp mooy ñetti match la ñu amal yeneen yi mm-hmm. dinañ ko wéyandi tey mm-hmm. donc ñaari match nul et vierge maanaam boo ko déggee ñaari équipe yi ku mm-hmm. euh, am na quand même euh, six que si rencontre bi nga xamante ne moom moo doon opposé moom moo ko dóor dóor yu métti di 5-1 donc six buts la ñu mën a jàppandi moom moo dugg si nga xamante ne moo di Ligue 2 bi léegi bu ko defee ñu jox leen li nga xamante ne moo euh, Ligue 1 Ligue 1 bi. mais mhm. avant loolu ñu bataille faire le point. Mhm. trois matchs nuls moom moo fa am dont un vierge. benn match moo moo fa am. Mhm. bu bu nekk 0-0. beneen bi ci des 13 buts la ñu mën a jàpp ne dugg ci li nga xamante ne Ligue 1 Star Time. au classement c'est si waaw si quatorzième journée bi au classement. waaw Pikine moom moo nekk ba leader. Euh, malgré sa défaite. moom mu ngi am 25 points. ki nga xamante ne moo di génération foot moom bien que joué gul. Euh, moom mooy deuxième ki nga xamante ne moo di les académiciens également de Dakar Sacré-Cœur ñoom ñoo jël troisième Tëngéej moom de wàcc na dellu si quatrième place bi Dakar Sacré-Cœur bi nga xam moom moo ko gagné moom moo jël place jël troisième bi mm. bu ñu ñëwee en milieu de tableau mun nañu xool ki nga xam ne moo di Jaraaf moom moo jël septième am 16 points mm-hmm. AS Douane ko dóoree dóor yu métti yooyu moom itam 3-0 mm-hmm. buñ de buñ demee nag ci li nga xam te ne moo di au bas fond du classement dinañ fa retrouver Sonacos bi nga xam te ne moom jotula football sax ndax moom moo waroon am match am ak génération yooyu Mbour Petite ngi si suuf mm-hmm. ñoom ñaar ñooñu ñoo ñoo jël ndaje mi. Mhm. ñaari tali moom jotul a enchaîner li nga xamante ne moo di euh, série de victoire am yu mu amoon. mu di mhm. trois victoire. Mhm. donc ñaari tali def na mu li nga xamante ne moo di match nul. waaw Abdoulaye bu ñu jógee ci résultat yi ak euh, point boobu nga daan ñu defal ci euh, classement Ligue 1 bi. donc dañuy daal di xaw a broché tuuti mooy. actualité sportive actualité sportive bu ñuy dégg entre Ligue 1 Star Time ak euh, ak euh, Ligue 1 professionnel ak Star Time contrat bu leen lié. Euh, ginnaaw bu fédéral ginnaaw bu dirigeant Ligue 1 yooyu noonu defee woon sorti ay bés yi ñu génn. Mm-hmm. semaine bi ñu génn ci weekend bi gis nañ ni AMAF mu daal di amal benn point de presse. Mm-hmm. doon ja jàkkaarloog taskati xibaar yi daal di pour éclaircir loolu noonu nga xam ne moom mooy problème bu am diggante Ligue professionnelle bi ak Star Time Abdoulaye ay leeral. naan mhm. mhm. waaw jërëjëf Toumane yaakaar na li nga xamante ne moom moo di contrat wala mhm. partenariat Star Times ak li nga xamante ne moo di ligue sénégalaise de football professionnel comme li nga waxee contrat boobu noonu am nañ ci ay tiitaange am nañ ci ay njàkkare parce que boo xoolee ki nga xamante ne moo di groupe Excaf tey dafa ñëw am lu mu opposé wu mooy dafa opposé wu si contrat boobu noonu léegi gannaaw opposition boobu nag ñi nga xamante ne moo di AMAF comme ni nga ko présidé muy association des managers euh, association des managers et administratifs euh, du football nous avons nañu points point de presse vendredi bi BBS euh, mhm. donc nous avons une conférence de presse je veux Moi d'abord je veux dire li nga sommes ne nous sommes professionnelle depuis 2009 2019 donc nous avons 10 ans d'existence mhm. donc ligue professionnelle du Sénégal a 10 ans d'expérience si nous avons ñu gis nous 10 ans euh, soutien bo xamantene bien que euh, état du Sénégal mom mo encourager à ce que ñu dugg ci li nga xamantene mom modi moo air professionnel mais li nga xamantene moy mesure d'accompagnement financier yi nga xamantene waron na ci championnat bi bo xolé mom defu ak encadrement juridique bi nga xamantene mom la laaj yépp ak statut des clubs parce que boy xol club yi amna lo xamantene amna ay critères yo xamantene dañ leen ko tek mooy cahier de charge yi mhm. am na benn budget boo xam ne boo ko amul tay mënoo prétendre nekk euh, club professionnel ci Ligue 1 bi wala ci Ligue 2 bi mhm. té amna ay salaire yoo xamante jot nañ définir donc nous avons ni état du Sénégal Toumani moom moo encouragé à ce que li nga xamante ne fédération sénégalaise de football professionnel bi mu dugg ci ère professionnel mais gannaaw ba mu leen encouragé boo xoolee dafa téye loxoom ndax li nga xamante ne mooy moyen d'accompagnement financier yi war état du Sénégal jotu koo def ba tax na nag 10 ans yooyu noonu bien euh, gars essayé bien que mal de me soutenir li nga xamante ne ligue sénégalaise de football professionnel comme ni ma la ko expliquer rek nekkee club am na critères yoo xam ne mën nañ la ko laaj ah. budget bi nga xam te ne moom nga war a am te salaire yi tamit dañ ko définir parce que booy xool salaire bi nga xam te ne moom moo gën a tuuti ça varie de 75 mille donc yow boo bu dee club nga da ngay fay au moins 75 quinze mille ses joueurs mm-hmm. te boo xoolee en moyenne li nga xam te ne mooy ligue sénégalaise de football professionnel bi boo jëlee salaire moyen euh, mm-hmm. salaire moyen bi ñu ngi fay si cent mille francs cent mille francs par waaw boo moyenne bi comme boo xoolee 75000 quinze mille salaire bi gën a tuuti te salaire yu dem ba trois cent mille donc mu nekk loo xamante ne tamit ça participe à l'économie mhm. euh, te boo xoolee ba ñu tegee li nga xamante ne moo championnat professionnel ba léegi mhm. état bi jotu leen gunge ni mu waree ba tax na nag ren jii mhm. mu am ki nga xamante ne moo di diffuseur chinoise bi Star Times mu ñëw dugg si euh, noué benn contrat ak ligue sénégalaise de football professionnel Le contrat boo xamante plus de six milliards moom lay investir si li nga xamante ne football bi te football boo les manières niente mom moko yor mhm. soit day am sponsoring wala mom am managering ci marketing bi mhm. wala transfert yi mhm. wala droit de télévision yi voilà donc tay waxale les droit télévisé mom moy lu gën ëpp solo mom moy man financière bi start Time nak 2019 bi jot naa euh signé contrat ak li nga xam te ligue professionnel mais bo xolé ki nga xam de ne bien que mon xam nañ ko partenariat ak euh, état du Sénégal ndax bo xolé exclusivité bi ci télévision numérique terrestre moment moko gagner gagné mais ki nga xam te culture chinoise mon boy booy par par via satellite rek lay émettre. donc ñu jàppoon ni foofu. xëy na warul a am problème grave non non. donc euh, ki nga xamante ne groupe di groupe Excaf. Mhm. Euh, question bu mu banaan ngir mooy dafa ne Star Time pas en conformité légale. Mhm. Euh, pour exécuter au Sénégal. Ah. donc n'est pas en conformité légale alors que bu ñu xoolee li nga xamante ne moo di Star Time Toumani. Mhm. boo xoolee contrat bi nga xamante ne moom la état du Sénégal par la voie du ministère de la communication. moom moo jiitu moom moo contrat bi nga xamantene euh escaf amna ko état bi donc amoon na ben convention boo xamantene ne état du Sénégal amoon nañ ko amoon nañ ko pour couverture plus de 300 village Yo, xamante ne couverture satellitaire la donc bu jé si côté contrat mhm. amna lu ñuy wax peut-être euh, dañuy delluwaat ci terme juridique donc tomane yakarna fofu ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, juristes yi ñoom ñoo ko gën wax yak parce que yakarna naa li nga xamante ne di principe de rétroactivité wala non mom mhm. moy posé wu foofu mais contrat mom bi ñu li ñu mën a start mooy ak état du Sénégal mhm. yag na boobu parce que si convention couverture satellitaire de plus de trois cents villages la commencé mais ñi nga xamante ne ñoo di football ligue sénégalaise de football professionnel ñom ñoom

exclusivité de la télévision peut-être si euh, télévision numérique terrestre voilà, pour gérer TNT do donc mhm. Abdoulaye bu ñu bu ñu bu ma sukkandekoo ci li nga wax nii yëpp donc ñoom waa AMAF euh, ginnaaw bu seen sortie bu ñu defee seen sortie bi ñoom est am na ay jéego yu ñu jot a teg pour jéem xool ndax nan nan la ñuy def pour jéem a trouver terrain d'entente entre entre StarTimes ak Excaf Télécom wala am na ay autorités yoo xam ne ñoom la ñuy jéem a déglu. waaw tumaani bu ñu delloo tuuti rek ci li xam ne moo di conférence de presse bi. Mhm. li mën a jàpp mooy euh, club yi administratif du football Nous avons a gannaaw sortie bi nga la euh, président ligue sénégalaise de football professionnel bi mm-hmm. moom les également club euh, dénoncer li nga xamante mom la Excaf bëgg def amna tamit d'ailleurs sax amna le 16 inchallah le 16 février bi ñom déclarer nañ dinañ def journée bo xamante football mort lay doon journée bo xamante ne du am football fenn euh, ñu fas yéene ko tenir journée bobu noonu ci stade Alassane Djigo donc ce mardi ni inchallah demain ñom prévoir nañu def ben rencontre mais bu ñuy wax ci stade naam ñu xam tamit mom du guléet yàgg na ci football mm-hmm. parce que bo démé Bundesliga ci sponsor la bokk boy euh, bo jëlee basket bi également mon moy sponsor officiel bi fi nga xamante moo Ghana également un championnat moom moo uganda yor Ouganda waxi mhm. donc si euh, football bi li ñu japonais a du fi gan. voilà donc daal start time opportunité la boo xam ne ni ñun au niveau du Sénégal dañ ko war a saisir. waruñoo baye mu romb ñu. waaw waaw su ma sukkandikoo ci li nga wax nii. parce que tey sport sénégalais dafa sooxe manque de sponsoring ak manque doo xam ne ñoo lay donc boo amé ku mel start time. yaakaar naa ne da nga ko war a maintenir. privilégié ko vu que dafay dugal xaalis bu bëri au niveau. Euh, au niveau du football national ak tamet euh, Euh, nu mu tudd ak euh, stade yu nga xam ne nii. ngay fàttali rek ci contrat bi voilà. Mhm. stade yi tamit am na stade yoo xam ne ni dañ koy synthétiser Abdoulaye. waaw donc daal di jéem a fexe ñi ba léegi nee nañu déggaguñ ñu fexe. xool lu ñu trouver terrain d'entente ndax football bi lu suy yëngu bari na lool. te football sans sponsor comme ni ma ko waxee football sponsoring moom moo ko yor wala droit télévisé wala marketing wala transfert donc bu ñu demee ba am droit télévisé bu baax nañu xool nu baax ci maa ngi ci kontaan Abdoulaye li nga wax noonu am na solo trop donc lay sant di lay gërëm bu baax a baax ginnaaw bu ñu demee teewal foofu noonu ci conférence de presse am na ñu doon amal ajuma foofu noonu ci ci ci benn de la place du laa ñuy fàttali ne rek sport facteur de développement la day xeex ngir chômage parce que boo jëlee ñu ciy yëngatu jeunes yu yëngatu plus de 500 jeunes dañ ciy yëngatu donc 500 ah, jeunes voilà 1500 jeunes jeune bu nekk di fay ko 75000 voire au moins voire 150000 ba si 300000 donc euh, lu ñu war a privilégier la mm. ngir xale yi mun a yëngatu ci seen sport bu ñu bëgg mm. ndax suba bu ñu doonee ay professionnel dañuy njëriñ réew mi non seulement mais njëriñ seen i famille yoo xam ni, nii ñoo leen di soutenir donc ñu bay ci xel bu baax baax Abdoulaye voilà ci xalé yoy noonu sax xamna ci lay laay sukkandiku def transition bi parce que mhm. dañuy dem fi nga xamante ne moo Niger mhm. xol euh, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans ah. suñu lion suoyu ñu ngi fa tumaani ñu xol te xam nañ équipe yi nga xamante ne ñoom ñoo wara euh, disputer li nga xamante ne demi-finale yi ah. ñu ci mëna japp modi Sénégal Mom, mhm. mo hérité Afrique du Sud Nigeria mo wara am ki nga xamante ne Mali te ñom ñent ñep doj nañoo qualifié fi nga xamante ne coupe du monde monde des moins de de bi ñu war a waaw Abdoulaye euh, CAN u bi ginnaaw bu ñu ko dooree ci semaine bi ñu génn ñu gis ne suñu euh, Lionceaux yi ñu def parcours sans faute ginnaaw bu ñu amalee seen match d'ouverture contre euh, Mali daal di koy deux buts à zéro ñu tollanti ko contre Ghana. dóor ko 2 buts à 0 démb dañ daal écraser li di Burkina Faso dóor ko dóor yu 5 buts à 1. Mhm. donc ñu def parcours sans faute au niveau des matchs de poule donc ñu daal dougal 9 buts encaissé ci ben donc. waaw ah, mooy meilleure attaque voilà meilleure mhm. attaque et meilleure défense en plus. en plus donc ñu am yaakaar ci ñom am njokkare ci ñom ginaaw buñu finalo 2015 perte ko fi ci Dakar contre mhm. nigeria finaalu 2017 contre Tanzanie. ñak ko fofu nonu donc ren yaakaar nañ ni les protégés de Youssouf Dabo dinañ ñu indil. titre continental boobu nga xam ne ñu ngi daw ci ay ati at ginnaaw ginnaaw loolu sax ñuy fàttali ne ñoom tamit qualifié nañ comme ni ñu ko waxee coupe du mm-hmm. monde bi mooy troisième fois d'affilée ñu koy qualifié ñu koy qualifié ginnaaw bu leen Joseph Koto yóbboo mm-hmm. yóbbu leen mm-hmm. donc ren Youssouf Daabo da dafay daal ànd ak ñoom rek ca Pologne 2019

waaw Abdoulaye week-end des Lions avec euh, nos ki qui qui qui qui les différents championnats au niveau européen. Mhm. ñu daal di gis am na ñoo xam ne jot nañ cee wanewaat seen bopp. Euh, ku ci dañuy dem Turquie d'abord njëkkee ko foofu. Mhm. ak ku fi nekkoon attaquant international sénégalais mi di Papis Cissé. Papis mhm. Demba Cissé di évoluer foofu noonu ca. ala ala Alana mm-hmm. Sport. waaw mm-hmm. moom daal dina dugal keroog benn bii bu mucc ayib mais bii boobu sax donte joxul ndam équipe am bi. Mm-hmm. mais daal di koy may confiance pour mu dellu si waat. waaw ah, moom mu ngi si sixième but yoon sax voilà sixième but de la saison. bu ñu fa jógee dañuy daal di dem des toujours Turquie ak euh, Mbaye Diagne bi nga xam ne dafa changé club. ah le grand Mbaye Diagne waaw mu daal di euh, ouvrir compteur biyam avec son nouveau club Galatasaray. gannaaw bu mu jógee ci club am boobu nga xam ne def na fa jaloore mercato bi waa Galatasaray ñoo ko daal di jënd démb mu daal di ouvrir compteur bi ak Galatasaray. donc moom mu ngi 21 bi. voilà donc di rappelé dafa mel ni rejoindre na ki nga Lionel Messi. Voilà. rejoindre Lionel Messi tu les meilleurs buteurs européens. bu ñu fa jógee dañuy dem Angleterre ak ah. notre Sadio Mané national Sadio Mané international Vous nga xam ne il est en forme. Sadio Mané voilà Dougal na keroog euh, but contre Bournemouth moo daal ouvrir euh, euh, score bi. Mhm. bi mooy quatrième quatrième but d'affilée bu mu marquer di ci saison bi. Mhm. waaw donc mon mu ci ah, il est en pleine forme Il mu ngi enchaîné. gannaaw bu mu dugalee ak Crystal place ak mhm. Leicester City ak mhm. West Ham mhm. démb jot naa dugal ak ki nga xam ne moo di Bournemouth waaw donc record personnel am battre na ko battre na ko Abdoulaye loolu mérite la voilà bu ñu fa jógee dañuy ne cëpp biir France Ligue 1 avec euh, Moussa Konaté gannaaw bu mu toogee presque trois mois juillet août euh, démb dafa daal di euh, dugal benn bii boo xam ne moo may sax clubam bi victoire mooy Amiens waaw Moussa Konaté nga xam ne namoon nañ ko trop moom muy commencé waat di retrouver wu forme ginnaaw euh, absence bu yàgg bu ko bu mu amoon juillet août donc dañuy jeexalee ak Mbaye Niang rek Mbaye Niang muy ren moom tamit jot naa dugal benn bu am solo foofu noonu ca clubam bi ren moom sa club boobu moo daal di dóor 3 buts à 0 Abdoulaye. Mbaye Niang mu jot a dugal donc Mbaye Niang dugal na France. ak mhm. ki nga xamante ne moo di Moussa Konaté ñoom ñaar ñëpp seen bii ay mhm. moo di ren 3-0 mhm. am bi c'est grâce euh, à Moussa Konaté. gannaaw euh, ñi nga xamante ne mooy di joueurs yi. ñi nga xamante jot nañoo dugal Lions yi seen yaram tàng lool. ñu waxaale ki nga xamante ne di également gardien de but bi moo di Edouard Mendy moom booy xool Europe. instant yi moom moo teg tànk si li nga xamante moo di clean sheet. clean sheet boo ko déggee Euh, jotoo encaissé dara donc ñu jàpp ne Edouard Mendy di ko bonne continuation moom moo nekk ci kanam ak kanam pratiquement parmi nos trois gardiens il est le seul actuellement titulaire au niveau de son club Abdoulaye Diallo mom dafa blessé woon Ki di ki di Gomis mom temps yi ci banc bi lay toog jërëjëf Toumani kon li lañ leen indi indiloon ci li nga xamante ne moo di week-end des Lions te mu war li nga xamante ne moo di bi nga xamante ne moom la ñu football bi mhm. Légui duñ def lu dul marqué une courte pause

waaw waaw Abdoulaye euh, ginnaaw bu ñu boucler page football bi ñu ngi waa ñu ngi ne cëpp ci wàllum basketball bi basket bi ñoom ñu ngi doon amal seen quatrième journée donc ñu tàmbalee ak góor ñi rek euh, góor ñi xam nga ñaari poule la poule A ak poule B donc dama leen di jox résultat poule A bi poule A USO moo doon dalal Tamba basket club euh, ci stade Marius Ndiaye USO daal di koy doo 69 à basket club moo doon dalal Saint-Louis basket club mhm. Saint-Louis daal di koy fekk si door ko dalal euh, AS Thiès AS Douane à 52 JA modon doon dalal euh, ASFA. JA daal 46 à. 38 donc ñu jall ci pool B bi Louga basket club Moron don dalal Dakar University club euh, fofu ci euh, CDEPS bu Louga euh, Louga daal 52 à 43 UGB Moron don dalal Sibac fofu ci stade Joseph Gueye bu Saint-Louis mhm. UGB daal di 59 à 55 ñaari Saint-Louis yépp gagné voilà mhm. Mermoz Moron don dalal Saltigué fofu ci stade Maurice Ndiaye Saltigué daal di 63 à 62 AS Ville de Dakar Moron don dalal US Rail bi Israël daal di koy dóor 62 euh, euh, à 45 Abdoulaye loolu moo nekkoon résultat boo xam ne nii moo. tuppe woon ci góor ñi donc ñu jàll vite fait ci résultat jigéen ñi waaw dalal euh, Saint-Louis basket club Saint-Louis daal di koy fekk si ko 80 à 36 Sadio Marius Ndiaye euh, jaraaf bu Dakar moo doon dalal AS Ville de Dakar AS Ville de Dakar daal di koy 44 à 37 Saltike bu Rufisque moo doon dalal euh, ISEC Sport foofu ci stade foofu jardin public bu Rufisque ISEC daal di ko 57 à 39 Mbour Petite Côte Mbour basket club autant pour moi moo dalal UGB foofu ca eh, foofu ca CDEPS bu eh, Mbour Mbour daal di 46 à 37 ASFO moo doon daral eh, Duc Duc daal di 78 à 46 Bopp moo doon daral USP EPT bopp daal di koy dóor 67 à 43 Failing Star moo doon dalal Dibalok Dibalok fekki ko dóor ko 56 à 50 Abdoulaye loolu moo rusendi woon ci wàllum résultat yu jigéen waaw jërëjëf Toumani kon ku mel ni équipe Saint-Louisienne yëpp a gagné ah mhm. eh, pratiquement te ñi nga xamante ne moo di académiciens yi également mooy bu académicien boo ko déggee mooy fi nga xamante ne mhm. dañ fay jàng dès le bas âge euh, li nga xamante ne moo di sport wala tàggat yaram donc ñu wax si académicien si côté sport mhm. foofu la ñuy waxee ñooñu dem ñu nekk ñoo xamante ne delluwuñu ginnaaw si street basket bi ñu ngi wane seen bopp bu baax a baax. yaakaar naa lii lañ leen indi loon ci li nga xam te ne moo di seen émission les Détails Co mais avant ba comme ni ñu ko tàmmee di def rek ñu tàggoo. waaw Abdoulaye santaan ñëpp gërëmaat ñëpp euh, di euh, ne. lii lañ leen indiloon seen beneen seen numéro L'oeil de Laye Co donc di jagleel nuyoo spécialement ama ma euh, sister Kiné Kébé Kiné mu ngi foofu noonu ca diwaanu Yoof moom ak jëkkëram monsieur Diané ak ma euh, ak ma nièce soxna Aada di leen bëggee di leen siyaar bu wér a wér fàttewuma tamit waaye Italie ki ci Edgar Davids fàttewuma ku ci mel Fatima Alda maa ngi lay siyaar bu ci Paris di nuyu zone bandi dëgg di nuyu waa waa ISEC 18e promo di wax heureux ménage à notre consoeur notre sister Mati Ndiaye mhm. euh, madame Diop di koy wax tamit Fatou Maye Diouf madame Camara ni ne bëggoon nañ teew trop mais liggéey baa ñu tënc euh, lii lañ leen indiloon seen émission lay dalay en ko Abdoulaye waaw jërëjëf Toumani euh, duma def lu dul ak ñi xam ñoo di chers abonnés yi ñoom gis nañ seen taxawaay bu baax a baax beneen bi des euh, di wax happy birthday ak ki nga xamante ne moom di Mariama ma depuis Toulouse di nuyuwaale ñi nga xam ñoo di diaspora bi yëpp ñoom Babacar Lo ñoom euh, Jamil di nuyu également ñi nga xamante ne euh, ñooy fidèle internautes yi ba tey di wax Kanisa Ña anniversaire bi am na solo bu baax baax ki nga xamante ne di sama sœur Ami Sène également maa ngi koy nuyu bu baax baax tey sama grand Lamine Touré moom moo jaar fii si habillement bi di nuyu Omar Gueye depuis Louga